ndax sénégal yi lañu fi nekkal ñuy recevoir ñun waa Y'en a marre ak FRAPP liggéeykatu Sénégal ñu naan ñu mais kuréel bu mel ni Transplast xam naa xale yi sax xamuñu ko 32 ans de procédure judiciaire ngeen foog ne dëgg la am na ñoo xam ne fàtte nañ luy Sotrac wala xamuñu luy Sotrac les travailleurs de la Sotrac depuis avant 2000 ñu ngi daw ci ay indemnité ak yeneen ak yeneen ay siyaas ak ay NSTS ak ay ñeneen ak ñeneen yoo xam ne boo limee turu entreprise yooyu kenn xamu leen dix ans vingt ans trente ans trente deux ans de procédure judiciaire duñ la àtte ñu la àttee ba nga am dëgg ngay daw derrière l'application voilà loolu la ñuy wax naan kumba am ndey ak kumba amul ndey la waaye ay bu nekkee xalifa Sall wala Karim Wade ay bu nekkee kilifa mais kaawu kilifa ñoom ñett lañu ci benn dossier moom kilifa. moom Thier moom Simon ñu libéré ñëpp ba mu des moom ngeen foog ne loolu dëgg la mu mel ni ñun buñ ñu jàppee buntu palais présidentiel juróom-ñett lañ woon xaw ma juróom-ñeent ñu libéré ñëpp ba mu des man mais loolu waratul am ma def trois mois kaso ñeneen ñu def un mois kaso loolu lañ voilà ce qu'ils sont en train de faire ak kilifa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 ana vingt cinq nit yi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu woon seen tur ca CREI yi dafa mel ni kenn rek lañ ci topp loolu mënul continuer justice xam ngeen nu mu sant Sénégal du mujj fenn loolu moo war a jeex justice noo tudd du mujj fen noo sant du mujj fenn loolu la ñu wax ne bu ñu moytuwulee sénégalais yi dinañ fajal seen bopp te février ak mars li fi xewoon. te mu tax suñu mbokk yi taxawal seen kuréel bu am solo boobu ñuy woowee plateforme jàmmi réew mi bokk na ci li jur les événements tragiques de février et mars dernier mbiru justice bokk na ci ay réew Afrique yoo xam ne fitna bu fa amee jur fa musiba boo xam ne kenn mënu ko xayma mbiru mais conseil constitutionnel wala décision de justice ñu ngi jëm ci élection locale mais justice mooy joxe naan diw moo gañe diw moo gañe ñu ngi jëm ci coowal troisième candidature justice moo nar a ne kan mooy nekk candidat kan moo nekkul candidat kon mel na ni ñun ñëpp citoyen sénégalais munoo yeewu ba heure bi ngay fanaan te doo jànkonteel mbiru justice journaliste yi ñaata lañ leen dóor fu mu mujj du mujj fenn lii mooy l'image de la justice sénégalaise donte greffier yi ñu ngi góor góorlu juge yi ñu ngi góor góorgóorlu magistrat yi ñu ngi góorgóorlu mais justice bi dañ ko tënk dañ ko catal moo tax ñun waa Y'en a marre ak FRAPP ñu ne dafa jot ñu fecci justice Sénégal ñu jatan justice justice Sénégal ñu tinki justice Sénégal ñu libérer justice Sénégal moo taxoon ñu ne dañuy tàllal loxo bépp citoyen sénégalais boo xam ne am nga mbokk kaso yàgg na fa kenn attewu ko kenn entendre ko ñu ngi lay tàllal loxo ñu def benn say képp kuy béykat sàmmkat ci Sénégal ñuy caxat-caxatee si suuf de depuis ay at mënuñu la atte atte bu jaar yoon ñu ngi lay tàllal loxo képp kuy travailleur collectif de travailleurs syndicat boo xam ne dix ans vingt ans trente ans yaa ngi daw mënoo am dëgg boo amee dëgg mënuñu ko appliquer ñun Y'en a marre ak FRAPP ñu ngi lay tàllal loxo ak ñoom seen ñu def benn say xool naka la ñuy organiser ay lël est-ce que assise nationale de la justice lañ koy woowee est-ce que état généraux de la justice lañ koy woowee ngir xalaat génne bépp xalaat boo xam ne jiitu na jiitu na tey xaw ma ndax CNRI xaw ma ndax les assises nationales wa waxtaan na ci wàllu justice ak yeneen ak yeneen muy ay réflexion yu am solo yoo xam ne ay sénégalais defoon nañ ko ñu wëyal réflexion bi xool nu ñu koy adapté ak tey xool naka la ñuy jatangee justice Sénégal parce que nous sommes en danger nous tous en sursis lii dal xalifa sàll lii dal kilifa lii dal keneen ak keneen mun na dal keneen ak keneen mënuñu nag nag nekk ci réew moo xam ne waa FRAPP dañuy dem ñaniñ ñu dóor leen saaga leen xëpp leen suuf ñu porter plainte depuis le mois de mais mais plainte bi du mujj fenn loolu ku mu neex wax dëgg yàlla doo nit ñun naxari nañu ñun ñëpp ni mu naxari Sénégalais yi mais lii c'est de l'insécurité juridique c'est de la violence juridique judiciaire lii la ñu wax ne si jàmm ak salaam un dañ ciy waxtaan waaye ñaar waxtaan ci waaye tamit dox ci donc résistance bi kon day continuer waxtaan bi day daal di continuer dinañ dem seeti syndicat yi dinañ dem seeti liggéeykat yi dinañ dem seeti suñu mbokk kaw gi ñi ñépp ñu am ay collectif ñu ngi leen di tàllal loxo pour dajeek ñoom les familles de détenus ñu ngi leen di tàllal loxo dinañ waxtaan ak ñoom dinañ waxtaan ak centrale syndicale yi dinañ continuer waxtaan ak parti politique yi ak société civile yi ngir def benn say ñun nag Y'en a ak FRAPP jàppale leen ñu comme ay facilitateur donc dañuy yombal processus boo xam ne li ko tax a jóg mooy benn nañu waxtaan nañu pencoo suñu yoon ngir ñu yoonal yoonu Sénégal mi nga xam ne dafa jéng bu waxtaan si jàmm ak salaam doyul ñu dox def taxawaayu ñaxtu ci jàmm ak salaam ajuma bii di ñëw nag dañuy manifeste fukki bërëb ak ñeent ci Sénégal déposé woon nañ ci table préfet yi da gis yenn préfet yi naan la ay non non non non du trois jours franc cinq jours franc bu ñu nekkee ca kaw ga lu leen neex lañuy def dakaar kenn sañul wax ne d'accord nga ñëw déposé ñu naan la cinq jours franc nga dem BMS ñëw ne la ah yow yaa déposé damay jël sa empreinte ñu teg ko fan Thiès ñu ñu toogal Thiès ñun yaa naa ak FRAPP ñu dem déposé di xaar BMS woo leen ne leen dañuy ñëw jël seen empreinte y a Sénégal nga dem Koungheul commandant brigade bi wax suñuy membre Y en a ak FRAPP ne leen j'ai les hommes et la logistique pour encadrer votre manifestation dégg ngeen ñu on avait dit qu'elle était autorisée ñu dem ba démb préfet bi mu désavoué le commandant ne non non non non non euh, maanaam commandant brigade warul woon wax loolu donc pour l'instant ce n'est pas autorisé ak ñoom seen mun nañ continuer exemple yi nga dem xaw ma Diourbel xaw ma fan waa ji ne mais préfet bi ne non non foog mu am mémorandum bu amulee mémorandum du ñu autoriser manifestation bi loolu fan la nañu bàyyi ñaari Sénégal un peuple un bu une fois lu ñu wax bu ñu buggee justice justice mooy dañuy respecter un peuple un bu une fois mu bañ a nekk deux peuples deux buts deux fois peuple boo xam ne justice day dal ci kawam day caw si kawam ñu koy tëj beneen peuple boo xam ne mun na luubal mun na détourner mun na rey du mujj fenn ñu ngi tàllal loxo les familles de victimes des violences de mars ak février yoo xam ne amul benn responsable des familles de victimes de bavure ñu ngi leen di tàllal loxo parce que justice bi tamit loolu la parce que si on permet que ñu faat Guy Marius Sagna te du am responsable du am sanction c'est comme si on donnait un permis à mu Moundiaye d'assassiner Tchad wala Aliou Sané du soxor du dara si on permet au policier Guy Marius Sagna d'assassiner alors que du légitime défense mu Moundiaye Cissé tudd mujj fenn c'est comme si on accordait un permis de tuer au policier Guy Marius Sagna mu assassiné Cheikh Oumar mu assassiné Malick mu assassiné Aliou mu assassiné xawma Xooxaan mu mu assassiné xawma et cetera et cetera loolu la wax ne justice épée euh, donc vendredi dinañ def sax lu gën a simple parce que xëy na euh, ci wàllu guerre cible buy déplacé wu moo gën a métti topp donc ñun dinañ yombal sax préfet bi ministre de l'intérieur ak président Macky Sall mbir yi fii ci ndakaaru rassemblement la ñuy def rassemblement boo xam ne Sénégalais yépp yi am problème de justice ak yi am gis-gis ci yoon nu muy doxee di leen jox kàddu gi sur un point statique mm-hmm. vendredi rassemblement la ñuy def dans les heures à venir Y en dinañ communiquer ci lieu boobu fan la bërëb euh, ban waxtu la donc nous allons faire un rassemblement parce que ñun comme ni ñu ko waxee il y le temps de la réflexion il y également le temps de l'action ñaar yooyu la ñu bëgg a boole donc ajjuma manifestation lay doon ngir wane suñu naxar suñu méttit waaye tamit suñu inquiétude suñu tiitaange bëgguñu Sénégal suux bëgguñu Sénégal yàqu ñun Sénégal la ñu am amuñu feneen bëgguñu li am feneen am Sénégal moo tax nag vendredi dinañ organiser ab waxtaan public rassemblement na ñëpp ñëw ci jàmm ak salaam solu ba rafet waaw sangu ba set ànd ak suñuy doom ñëw wax li ñu naqar li ñu mettit ak li ñu tiital ci lii ñu gis te fu mu jëm buñ ko seetaanee ñun ñëppay ñàkk.